Euh, loolu nga wax noonu dafa am euh, rek loo xam ne dama ci bëgg a attirer attire attirer sa attention. Mm-hmm. Euh, je pense que nii ça fait bientôt douze ans. que le mm-hmm. président de la République monsieur Macky Sall mu ngi diriger Sénégal est-ce que avant ñoo wax waxu troisième mandat bi est-ce que daan na am problème bu mel nii. man je suis États-Unis mais à chaque fois ba fa mësul ñëw dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies mais ay partisans am dañ koy dañ koy dañ koy euh, dañ koy teeru n'est-ce pas mun du am coow du am dara yéen sax presque doon ko yëg fii au niveau du Sénégal xam nga waaw waaye dafa am loo xam ni euh, ci réew mi fu mu toll nii dafa am yoo xam ne mënatul jàll mënul jàll mooy aujourd'hui mënoo bokk ak ay nit yoo xam ne ëpp la woo leen dara juróo leen jundoo leen moo leen dàqoo leen jàng gënoo leen xam lu xew par le jeu normal de la démocratie ñu fal la en 2012 n'est-ce pas mu amoon ko fi nekkoon mu nangul la loolu yaa ngi ma dégg yow nga ñëw ba war a fégal nga bëgg ñëw fokkarti mbir mi bëgg koo bëgg koo bëgg ko bëgg koo aakimoo moom ba léegi waxut waaw wa waaye waaye waaye dama jàpp ni ba léegi waxut dara dama dama jàpp ni loolu lu ma ci jàpp lu ma ciy wax mooy tout simplement gis nga mbir mbir moom bu demee ba ay bakkan di ci yaakaar naa ne képp kuy kilifa boo xam ne mate nga kilifa gi war nga cee yiy yàbbi pour que véritablement pour dire que ni bon intérêt yi nga xam ne moom laa doon préserver en me taisant aujourd'hui gis naa ni amul benn intérêt bu féete kaw. mais mais saccage yi ñu nemmeeku ci ambassade yi. waaw est-ce que am nga ci fierté. non gis nga yàq moom yàq amul kenn koo xam ne ku bëgg lu baax ba pare di ànd ci yàq loolu moom loolu moom loolu moom c'est parce que mhm. waaw parce que encore une fois li ma la waxoon sànq rek loolu laay waxaat réew mi ñun ñoo ko bokk aujourd'hui ñun ak man ak ñu mel ni man bitim réew la nekk waaye l'essentiel la lu ñu fay am investir nañ ko fii ci réew mi bon yaakaar naa ne nag doomu aadama doo jël say say euh, maanaam comme ni koy waxee doo jël euh, doo jël sa alal suul ko fenn ba pare di bëgg mu yàqu mhm.